mbokku téléspectateurs yi asalaamaaleykum ñi ngi rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média dal leen jàmm seen émission riiru campagne muy am saa su juróomi waxtu jotee ci ngoon jàpp juróom mbenn waxtu ñu leen di gunge rek ci campagne électorale bi jëm ci tabbu pencu ndaw réew mi maanaam ñiy teewal Sénégal foofa ci assemblée nationale maa ngi leen koy wax nag daanaka ñeenti fan rek moom moo des campagne bi tëj ñu noppalu samedi incha allah. su ko defee dimanche fanweeri fan ci weeru juillet sénégalais yi dem ca mbañ gàcce ngir rekk tànn seeni député bii nag moom moo war a nekk fukk ak ñetteelu législature ci taarixu Sénégal ñu nar a tànn téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ci ay député lis yi nag seen ab lim toll na ci ñeen fukk ak juróom-ñaar loolu nag moom moo tax rek saa su nekk it ñu ci ànd ak borom xam-xam tey ñu am mbégte dalal fi Malick Diop moom mooy coordonnateur des acteurs non maanaam di rek. ci wàllu société civile sañ Diop euh, juriste la xam-xamam màcc ci wàllu droit expert la ci wàllu élection Malick maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serif. actualité bi nag mbokk yi buñ koy tàmbali comme ni ñu koy defee rek xam ngeen ni nag euh, am na coow lu dox ci diggante ki jiite list coalition gagnante watu Sénégal di Ablaye Wade ak ngóor gi tey jii nag ci talaata ji amoon na yéen am ndoxu ñaxtu jógee ca place de l'indépendance dem ca ministère de l'intérieur ngir sàkku rek ci kilifa yi ñu génn carte yi jox askan wi. loolu nag euh, démb préfet bi lankal na ko ko daal di génn arrêté ne boobu marche daal dañ koo tere ñuy fàttali ne looloo tax rek say euh, jii ca place de l' sax euh, sécurité ba mën na fa xas daanaka li tubaab naan buum kër lan fa def rek dem baak dikk ba xaw a tagga témbe ngir rek yooyee alkaati daal di wagaro bu baax ngir kenn bañ a amal doxu ñaxtu xam naa sax suñ reporter yi ñu ci terrain bi den jokkoo ñoom ci biir émission bi laata loolu dañ ciy laaj réaction Malick Diop Pape Fara ñi ngi ñu ne ma mi ngi ci ligne bi Pape Fara ginnaaw bi ma la nuyoo yow yaa ngi ca place de l'indépendance décor bi mën nga ñu koo campeel waaw Chérif bu ma la njëkkee côté euh, campé décor bi ma place de l'indépendance sax xaw naa fa bougé ndax wàdd da dem ñëw ci yoon bi ñu ko dem gàttandu ak cortège bu mag boo xam ne lu ci nekk ci oto kenn xamul lu mu toll bi mu ñëwee nag ba Soumbédioune foofu mu fekk fa benn dispositif bu doy waar boo xam ne bu wàllu police seen dragon yëpp lañ leen dóor nag ay gaz lacrymogène ci la cortège bi tas fi mu toll nii nag journaliste yi fi ñu taxaw euh, ci poste Médine bi ngir xaar ñoom wàdd euh, fan la ñu jaar fan la ñu nekk mais fële ca place de l' indépendance la duñ ci mën a jàpp moo nekk euh, quelques personnes ñi nga fa woon ak ñi nga xam ne ñoo nekk jeunesse libérale bi ñu dóor leen ay lacrymogène tas leen genre guérilla ci mbedd bi dàq leen ñu dugg ci biir koñ yi ay ñoom Assane Bawas ñenn ñu fa nekk ñoom professeur Malick Ndiaye gars leen Ah, foofu nag euh, xamoon na sànq sànq waaye fi mu toll nii daal Ablaye Wade la ñuy xaar nii euh, ñu ngi naan mu ngi côté cour de cassation ah, ku ne ñu ngi wax mu nga fa waaye ba léegi rek gisuñu fu mu nekk ndax cortège bi dafa sa poste Médine nag surtout gis bu am solo moo fi nekk. Pape Fall Ablaye Wade mi ngi woon ci cortège bi waaw mu ngi woon ci cortège benn 4 kat 4 bu gris nekk sax dugg ci ak garde corps yu wër ko mais cortège boo xam ne li ci nekk ci kenn mënu ko wàññi bi ñu jaaree ñëw mmh. euh, jugee plus de cent oto dégg nga journaliste bi ko wax ñëw jël ale bi nag euh, maanaam fi nga xam ne nag Blaise Diagne ba poste Médine fa lañ ko tasee ba léegi nag di ko tuj cortège ñuy jaar kër sëñ bi ñuy cour de cassation ñuy côté RTS mhm. kon ñu ngi ci rond point poste bi di xaar waat ndax ñu euh, këram lay defee déclaration mhm. euh, wala déet waaw toppal ñu ko nag nga toppal ñu ko lu ci mën a am nga dégtal ñu ko balaa émission bi jeex Malick benn réaction la la lii lépp inspiré Sénégal quelques jours des élections coow li nii ci mbiram marche ak ñàkk marche waaw jërëjëf jërëjëf Chérif xam nga réew su dul jàng ci ci passém dafay doy waar dafa mel ne du ñu avancé xam nga tey li ngay dégg nii dafa mel ni dégg nga que cinq ans passé quinze ans vingt ans du ñu changé je pense que c'est important que ñu mun jàng ci avancé loolu muy doxal réew ku avancé wu nag da ngay dellu gannaaw et je pense que lii tey soo ko xoolee 2012 lii moo amoon. Mm-hmm. même même scénario même personne rôle yi ñoo changé rek mbubb yi la ñu changé. kon nga nga xam ñoom duñu soppeeku seen ci seen pratique et ça c'est dommage pour le citoyen que nous sommes ndax tey soo jëlee lii tey Ablaye Wade moo jëloon décret bi. xalaatu pour arrêter Ousmane pour arrêter arrêter Ousmane comme ci régime am loolu tere tey ñi fi nekkoon war a marche tey ñu mu nekk vice versa muy appliqué mooy wan ni que ni li ñu ci war a jàng mooy que ni lépp loo nekk même soo nekkee ci nguur lépp loo jël ëllëg mën na dal sa kaw donc suñ soo ko xamee noonu daa rafetal donc lu am solo la. tey suñu benn muy première considération première deuxième considération muy wàllu juridique mooy droit ci campagne la ñu nekk xam nga campagne soxlawul aussi ngay aviser ni damay dem ak yooyu tey su fekkoon dafay ne caravane la day def meeting je pense que problème bi du posé mais xam nga soo déclaré ca marche activité la boo xam ni du question campagne dañ c'est réglementé mhm. le principe de la marche c'est assuré ci constitution bi mais aussi réew dafay dox dafa am ay règles ak ay normes sécurité donc la sécurité du, du des citoyens c' l' état qui doit mooy assurer garantie bi. kon loolu yëpp dañu war a xool lépp nan ko mën defee ci rafetal ci principe républicain république xam nga lan la élégance. rafetal su amatul élégance rek nekkul ci. nekkul dinañ ci ñëwaat ñu génnaat Cheikh Tidiane Dione yow ci suba ba léegi yaa ngi woon fan résidence fa Ablaye Wade dal jombul ni xëy na toppoon nga cortège bi fu ngeen ne nii. dellusiwaat nañ ci kër maître Abdoulaye Wade gannaaw bu ñu génnee jéem wutali nga xam mooy euh, place de l'indépendance waaye mun nañ li ñu ci mën a jàpp rek moom mooy benn yoon jàllul euh, puisque dem nañu euh, fi nga xamante ne moom mooy Médina foofu dañ ko baare woon mu forcé wër dem ba rond point RTS ñu bloqué waat ko finalement nag si la ñu gis mais ñun ci jamono jooju dañoo tàqali woon ak ñoom ndax embouteillage bu metti moo fa amoon waaye si la dellu si fi nga xam ne nag moom mooy fan nii di def euh, ab janno ak was ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy journaliste yi voilà ci tënk rek liñ ci mën a jàpp moom mooy dafa gis ne mbir mi euh, échec la ci démocratie Sénégal fi mu toll waroon nañoo bàyyi sénégal yi ñu dox jóge place de l'indépendance wutali fi nga xam ne nag moom mooy place wala book ministère de l'intérieur pour fësal li nga xam ne moom mooy seen naqar ba tey tamit wax na tamit ci ay dossiers yu bari wala boog vote yi nga xamante ne dañoo ne ku ci nekk war ngaa mën a voté lii di sa permis ñoom si lii di permis wala passeport wala lépp lu mun ci doon mu jàpp ne conseil constitutionnel euh, war naa war naa euh, daal addu ci lu ndax addu gi moom mooy lu kenn waru koo mën a nangu benn yoon euh, loolu moom mooy gis-gisu kii di maître Abdoulaye Wade te moom tamit ba tey yokk na ci ne moom gis na ne li mu def nii Macky Sall ñemewu ko def Fatick nga xam ne foofu la dëkk ndax boobu ba léegi ba campagne bi dooree ba tey demu fa benn yoon te moom démb jaar na fa jàll waaye tamit laata muy tëj lii di campagne am dina dem ba fi nga xam ne mooy Fatick daal di défier ki nga xam ne mooy président de la République ndax euh, suñ sukkandikoo ci kàddu Ablaye Wade nee na euh, persona non grata lañ ko fa déclaré maanaam Euh, ndaw yi nee nañ bu mu dugg foofu looloo tax boobu ba léegi dugg fa mm. donc euh, fi ñu nekk nii nee na victoire am gëm na ko te xam ne lu ni mel dina am am na sax benn waykat euh, benn journaliste plutôt boo xam ne laaj na ko nekk yow lan moo tax boobu ba léegi nga bëgg a des ci politique bi te nekk mag mu ne ko man li ma jaaxal yéen tubaab yi rek yéenay wax ci lu ni waaye sénégalais yi ñoom duñ ci wax benn yoon na sax ñi nga xam ne ñoom ñooy leader yi ndax soo xoolee relativement magul ñoom Moustapha Niass ak ñoom seen hmm. donc daal Chérif ci jamono ji moom mu ngi jàkkaarloo ak way taskatu xabaar yi ñu jàpp ne ba bañ ko dooree euh, jóge fii nga xam ne moom mooy euh, Fann euh, résidence wutali wala boog bëggoon wutali fa nga xam nag moom mooy place de l'indépendance mbir mi mujjul antu la tax mooy benn rideau de fer bu metti la ñu teg ba Abdoulaye Wade mënul jàll donc dafa wër dellu si waat ñu ngi nii euh, ci këram muy jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy taskatu xibaar yi euh, loolu daal lañ ci mën a jàpp su fekkee ne amaatoo leen euh, beneen laaj Chérif Dia. ñu ngi lay sant di la gërëm kon bu ñu déggee suñu reporter Malick kon Abdoulaye Wade gàntal na dem nga kon liñ ci doon njort ak fitna yooyu bu dee toog na ci kër ga dootul amaat. non xam nga xam nga Chérif xam nga tubaab defee nii une fois des stratégie la la. tragédie deuxième fois su amee comédie la troisième fois farce la je pense ñu ngi ci comédie bi <laughs> li yëpp comédie la quoi. dañuy théâtre nga non théâtre la théâtre la comédie la parce que tu sais moi je euh, li ñu gëm ñun citoyens yi ñu mooy que ni élection yi citoyens ñoo ko moom ñoo am baat lii genre règlement de compte la. voilà je pense que euh, campagne bi c'est xam naa ne ci dugg mais campagne bu décevant la parce que kenn waxul au fond citoyens yi peuple bi lan lañ ci bëgg. rawatina ci programme bi ci programme thématique yi ci programme assemblée ci projet assemblée yi parce que loo fi dégg kii def nii damay marché damay def lii damay def nii te c'est pas du du loolu euh, li nga gis campagne bi mooy yéeg sa oto tàllal sa loxo pour tout le monde mhm. amul benn débat de société amul benn débat de de contenu programmatique mhm. pour wax ko c'est vrai que 47 listes bëri na mais mënoon nañ ci jikk jukki pour xam au moins ku nekk fan nga jëme réew mi mais fii je pense que ni on est dans une euh, dafa nekk remarque li ñuy wax remarque et que ça c'est plus que règlement de compte la que autre chose et je pense que ça intéressé wul citoyen mais intéressé wul Sénégalais citoyen mais ñi ngi koy dund parce que boo xoolee place de l'indépendance tey euh, cordon de sécurité ba fa amoon ña fa amoon ni commerce affaire ya business bi boo xoolee Dakar yëpp fa la yëngatu daanaka embouteillage yooyu kon yëg nañ ko. ñoo ñooy victimes yi xam nga au lieu que surtout citoyen yi nekk solution victime la instant yi parce que daneen embargade tey soo demee ville laa jógee maa ngi génn pour nga génn parce que ñun ñëpp ville lañ amoon a a génn parce que xam na ni après même su marché amulee duñ fa yegg si mais ku nekk da nga mën aar sa sécurité aar sa kii et a des pertes en manque à gagner commerce yi tëj nañu services yi arrêté nañu service bi on a des manques à gagner mm-hmm. tey journée bi yëpp c' est de l' argent perdu pour l' état pour le pour le citoyen et ça ñoom c' est pas c' c'est pas le problème je pense qu'il faut que politique yi revenir à des raisons proportionnellement gardées pour que ñu mën a xam citoyens yi ñun citoyens yi gis nga shérif dimanche citoyens yi ñooy jël seen décision te suñ ko jëlee lundi les gens vont travailler parce que on a une maturité yoo xam ni y a juste une classe politique ñoo xam ni ñoom ñooy accaparer ñoom ñu prendre en otage le peuple sénégalais te duñ ko ñun citoyens duñ ko gars yi dañ koy bañ am na lu fulla boo xam ni c'est vrai qu'il y a énormément de difficultés on va y revenir ci retrait carte yeeg yëpp mais mais ñi nga am fulla c'est-à-dire dimanche les gens voter et lundi on va préoccuper yàgg na ñoo surprendre oh, non voilà li moom c'est comme nga soo boo xam ni euh, euh, seen Cheikh Al Maktoum dafa doon wax na benn affaire boo xam ne mu ni gis nga réew soo demee ba politiciens yi ëpp citoyens yi problème am na te ñun situation bii la nekk tu as l'impression que que dëkk bi ñëppay politique parce que aussi média yi ñoo amplifié tout le monde c'est tout fait normal. tu tu crois da ngeen ñëpp ay politique. mais la plus la grande masse silencieuse les citoyens. xam nañu def moo ñuy voté. te ñooñu xam nañu ils sont avertis xam lu seen ay solu seen seen seen décision xam nañu seen choix. yaa ngi wax waxu règlement de compte kon diggante Ablaye Wade ak kan la. mais loo fi dégg Ablaye Wade mag yi dégg nga léegi <laughs> déclaration Ablaye Wade c'est pour il n'adresse il dit directement am directement Macky Macky su réagir directement aussi pour pour Ablaye pour soo déggee seen débat c'est comme si on est dans un remake de 2012 2012 passé na donc 2012 mënatuñu refaire le match on peut plus refaire le match nanu cest à que nanu attaqué def liste yi ñi présent ci liste yi a teew assemblée wax ñoom lan lu tax ñu fay teewale mais fii ñu bëri ay teew par procuration la Ablaye Wade il sera pas député ça ne l'intéresse c'est ça la te mooy tête de liste te mooy tête de liste euh, euh, euh, Mohamed Boun Abdoulaye Diome il sera pas il sera pas député intéressé wu ko te mooy tête de liste ainsi de suite donc c'est c'est ces question la de fond te ñoom ñoo léegi les les les deux pôles. il y a il y a des troisième Khalifa Sall et cetera en prison voilà on est dans un benn benn élection boo xam ni c'est c'est. te pourtant 47 liste la question bi mooy kon ñeneen ñi seen rôle. ci lii lan la. non mais xam nga nag xam nga. C'est vrai, il faut s'attendre parce que si on met 300, 300 partis, tu peux bien attendre à ce qu'à 45 de proportion là. Parce que si on est 300 partis, c'est à peu près 12%, 15% des partis qui sont présents. Donc ça dit que ce qu'on ci ci tiinam tu dis que c'est normal mais dans un pays démocratique comme ça ça dit que tey ça dit que 47 am na ñu bëri ñoo xam ni moi j'ai du mal man damay wax ñun ñëpp déen mm-hmm. waxaat ci bu ñu mënee taxaw ci Ablaye Wade quand même participation peut-être kenn xaaru ko xaw naa bett nit ñi le fait que mu jiite liste ñëwaat di kujje ban koy baaree li tali ak yooyu euh, loolu est-ce que rafet na parce que boo xoolee moom euh, ancien président la daanaka sax situation bi gis nga mu ne am na ab taskatu xabaar bu ko laaj mm-hmm. liñ koy dund bariwul déjà ci àdduna bi rawatina fii Sénégal c'est inédit comme ni ko tubaab bi waxee non Wade je pense il faut que ñu am taxaw aussi kenn mënu ko tere que nii tant que il am na doole ji am na quantité bi am na volonté bi def politique mais je pense que ni kooku moom kenn kenn nangul ko kenn nangu kenn euh, euh, nangul nang ko loolu lépp c'est vrai maintenant cër nag am na foo xam soo fa tolloo xam nga chef wala dafa ni euh, cër su doon su doon yem am ñu bàyyi seen cër mm-hmm. kon xam nga cër du yam kon am na cër yoo xam soo la ko joxee am na yenn retenue am na yenn waxin am na yenn taxawin am position yoo xam ni ci lan la lay xaar je pense que quand tu as occupé le plus haut du fonction de ce pays là xam secret yi xam loo xam ne waroo ko wax waroo ko am na yoo xam ne aussi war nga maintenant il est dans son noonu la gisee ni moom lay vivre euh, activité politique am jusqu'à sa jusqu'à sa mort sa tombe loolu nga dañ koy dañ koy yéene jàmm rek mu am doole. yow jàpp nga ne que xëy na am mook Macky a gise wala waxtaan pour pour dal am comme nee nga presque ñooy principaux acteurs yi fii ci jeu politique. non xam nga xam nga li tumuraanke xam nga li raf. Euh, ci dëkk ci réew mi te naan un Sénégal un pays de dialogue mooy l'absence de dialogue politique je pense que kooku war nañ ko jàngal tous les hommes politiques xam nga dialogue politique du bàyyi sama cër dañuy ñu ñoo bokk ndab li mais nañu xool nuy toogee ci ndab li je pense c'est ça mooy dialogue politique. Mhm. ndab bi ñu ñoo ko toog ñu ñëpp ci war a lekk mais comme ñun ñëpp ñoo ci war a lekk il faut ñu xool ñu ñuy toogee am na ñuy toog ci sees am na toog ci banc am na ñuy toog ci suuf mais ku nekk ñu dugal sa c'est ça qui est important. waaw problème dialogue boobu sax ak li tax Abdoulaye Wade bëggoon a maat si mooy mbiram carte électeur yi gis na ni indi na fi coow ba moom mu mobiliser woon ay militants ne tey dañuy dox ca ministère de l'intérieur déjà initiative bi ban analyse nga ci def pour jot carte yi. non xam nga carte yi euh, il faut que ñu am un peu de recul parce que xam nga da ngay jàngat ñun dañuy jàngat xam nga refonte fichier yi soo xoolee du guléet soo remonté def nañ ko après def élection 2007 yi. vous savez élection 2007 yi loolu moo indi boycottu. opposition bi ci xam nga xam nga il faut ñu moo indi boycott bi te soo xoolee daan ci ñëw <clears throat> taxaw seetlu bi ñu ci def mooy ci législative yi à chaque fois da xam naa daañu mu ci taux de participation day impacté ci taux de participation yi tey soo xoolee 2007 taux de participation dafa nekkoon ci 38 pour cent ci boobu euh, boycott dafa am. ñun analyser ñu bëri analyse dañu woon non parce que y a boycott de l'opposition et cetera et cetera. ñun doon wax opposition significative. boo xam ni tamit mais soo xoolee cinq ans après muy 2012 taux de participation bi amoon dafa wàcc te pourtant amul boycott. ñëpp a participé te ñëpp a participé. dafa jóge dañu jógee ci dañu jógee ci 38 pour cent ñëw ba 35 pour cent mu wàcc te ñëpp participé nañu ñun ñu def def nañu étude boo xam ne publier nañ ko depuis juin pour wane ni euh, nature nature. scrutin bi moom mooy mooy wane abstentionnistes su bëri te ñu bëri aussi justifié nañ ko lu tax parce que tey soo xoolee juin bi ñu jëlee bi ñu defee étude bi dañu wane ni 63 c'est-à-dire que téeméer boo jël juróom-benn fukk ak ñett yi dañu ñu voté. lu tax dañu voilà au mois de juin. lu tax déjà li ñu wax mooy que nii benn mooy perception bi nu am ci assemblée. pour ñoom assemblée gis-gis bi ñu am ci assemblée. pour ñoom assemblée prolongement législatif bi la. que assemblée amul njëriñ deful seen rôle comme muy perception bu am solo beneen bi niveau bi mooy euh, divorce bi am entre politique ak ak citoyen soo jëlee juróom juróom téeméer boo jël 46 euh, pour cent yi mooy juróom fukk ak juróom dañu jàpp ni ñoom duñu voté ndax dañu jàpp ni gëmuñu politiciens yi. gëmatul leen gëmatul xam nga loolu dafa am solo kon mu xam liggéey bi nga xam ne politique yi war nañ ko def ci citoyen pour le téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom-benn. dañ ñoom duñu voté ji ci voté bi parce que gëmuñu politique bi xam nga loolu dafa am solo beneen bi ñu ni juróom-ñeent fukk ak ñaar boo jël ci ñun ñoom duñu voté ji dañ ni ñoom gëmuñu ni action effic action gouvernement bi am na efficacité am na seen jeexital seen. seen seen dund seen dund. Mhm. kon ñu adressé ñaari message yoo xam ne gis nga taux yi foo boo xam ni ñaari message boo xam ni pour assemblée bi ak pour le gouvernement mais soo jëlee aussi ñu ni wàllu corruption. moo ñëw trois troisième gar bi dañ ni mais pourtant ñu voté parce que lépp guerre na too xoolee tey xaalis bi dugg nañu à fond toujours ci élec ci élection yi mm-hmm. achat de conscience donc transhumance yi yooyu yëpp dafay impacter ci comportement citoyen yi mm-hmm. mais soo jëlee beneen bi mooy violence politique bi fitna gi fitna gi xam nga lii bi ñu koy wax étude soo ko xoolee mi ngi mi ngi mi ngi man mm-hmm. depuis depuis juin lañ ko publier ca koor ga boobu sax yi problème amul amoonu 45 listes amoonu carte d'identité amoonu dara soo xoolee juróomi position bi ñu bëri fukk bu téeméer boo jël juróom-ñett yi dañ ni ñoom du ñu voté voté woon du ñu voté ndax dañu jàpp ne ñu jot seen carte d'identité te 15 pour cent moo ko waxoon au mois de juin te étude bi ñoo ko def entre avril mai juin te yooyu yëpp yi ñëwul woon kon nga xam ne ñun. jàngat yooyu lan Sénégal la politique yi war a taxaw. est-ce que ñoom am nañ étude bi résultat yi pour analyser ko. am am nañ ko de ban koy def ñoom ñëpp toog nañu ba ñu koy restituer ñu jox leen ko wax ak ñoom ni leen lii ci suñuy war a liggéey ci yii leen ponk yi leen war a liggéey parce que ñun société civile ñun acteur non mooy la plateforme des acteurs non ci yooyu la liggéey. lan moo tax bi ni campagne kon jéemuñoo renverser li tubaab naan ñi xawoon am ay xiini mii ni ci taxawaayu politiciens yi ñu mën leen a indi. ñu mën a voté mais Chérif moo tax ma ñu ne ñu politique wuñu ñii politique bu ñuy def duñ demale fenn xam nga lan mooy seen politique def caravane taxaw tàccu ak tàllal loxo jeex na jëlal yow yéen yéenay couvrir élection yi jëlal campagne yëpp 47 liste yëpp taxaw la ñuy taxaw taxaw def caravane. Hmm. yëkkati loxo tàccu xeex xuloo et cetera mais débat yi débat de fond yi ñu am. yoo xam ne ñun sax société civile muy plateforme des acteurs non étatiques dañ koy liggéey ak yeneen partenaires di leen ko jox dina ko soumettre pour ñu mën a xam ñoom tey nan lañ war a mën a orienter seen xam nga yi ay ay recherche la mm-hmm, mm-hmm, ay baromètre baromètre la mm-hmm. ay recherche la yoo xam ni tey parti dana waroon taxaw ni kat ah ñun kat kon comme nii la nii lañ war a tënke suñu campagne suñu stratégie de communication nii lañ ko war a defalee nii wala jubbanteeg suñu taxawaay ba mun a jubóog askan bi mais seen problème loolu du seen problème lu seen problème mooy seen biir. kon taux d' abstention parce que dañuy permettre ñu wax ci taux d' bi c' est vrai soreetul ak li nga gis yow ci campagne bi ak résultat analyse boo ko méngalee yaakaar nga ne coppite dina am. Euh, Chérif maa ngi koy wax fii peut être dimanche soir nga invité waat ma wax la su ñu dépassé 30 pour cent ou 20 la. pour législative muy muy record kon. muy record dañ koy record bi. dimanche soir un soir daan fi ñëw daan la daan la euh, li parce que dañ ko gis. te tey dafa am yeneen cri dafa yeneen critères indicateurs yoo xam dafa duggaat ci biir te ñun jëluñu ko woon sax ci analyse bi. muy yan muy retraite carte yi. muy retraite carte bi tey on est à un taux par exemple de moins de quarante cinq quarante pour cent de retrait. Mm-hmm. retrait waaw mais mm-hmm. am na nun ko defee bu ñu ngi xaar conseil constitutionnel joxe décision am ginnaaw bi ko président saisiré démb. yaakaar nga ni nit ñu yombal gars yi ñu mën a voter ñu récépissé bi boole ko passeport ba ak permis de conduire ba ak yeneen i xeetu identification euh, yaakaar nga dina. indi waaw xam nga nan def benn taxaw seetlu ba xam gis nga tey soo jëlee euh, tey noo ñoo ngi ci mille euh, treize mille neuf cent quatre vingt neuf bureau de vote. ci réew mi yëpp. ci réew mi treize mille soo ko xoolee ci élection yi passé ñoo ngi woon douze mille trois cent quatre vingt un bureau de dafa yokk dafa yokk donc mu xam ni yokk na mille plus de mille six cent bureau de vote soit treize pour cent saa soo ko xaymaa téeméer boo jóg yokk nañu juróom-ñetti poñ te xam nga loolu lan moo koy ko parce que ñun ñu classe politique dañ ni woon bureau de yi ñu ciy voté dafa bëri parce que dañ woon dañ ko plané foon dañ ko plané foon yokk ko ba neuf cent ah muy juróom euh, juróom-ñeent fukki junni juróom-ñeent fukk euh, juróom-ñeent fukki téeméer ñu wàcc ko ba six cent kon am na marge trois cent xam nga su amee rek dañuy créé beneen bureau de vote te tey bureau de vote yooyu xamul fu mu nekk xamul ko fu mu nekk. maanaam ñun fa yóbbu te jotuñ seen carte duñ xam. duñ xam duñ fu mu nekk. lan moo ci war a nekk taxawaayu kon déjà xam nga loolu problème la parce que même soo nee la par exemple am na tey ñu bëri ñoo xam dañ naan la mooy soo jëlee ci surtout centres yi les gros centres les les muy Grand Yoff euh, Parcelles ak yooyu nga xam ne ay centres dafa bëri. parce que foofu soo même 2012 rappel nga am nay am nay abri provisoire mm. parce que abri provisoire dañ naan tant que suñ dépassé dañuy créé abri ne war na yoo xam ni euh, état bi war na ministère war na ko créé 1600 abri provisoire yoo xam ne xamul fu mu war a xamagul fu mu war a nekk benn te ñooñu ay électeurs day posé wu ñaari question d' abord mooy la problème du fichier mm-hmm. mooy kii voté kan mooy voté problème fichier bi loolu lay réglé tey xamatul tey est-ce que xam nañu beneen bi bi am solo mooy la carte électorale bi nga xam ne yooyu dafa disponible ñu ngi ciy ñëwaat ñu génnaat rek jël Cheikh Anta Diop sunu correspondant ci Thiès Cheikh ginnaaw bi mu la nuyoo daanaka léegi tey ñu egg ci cëppaandaw la fan ngeen toll ci yëngu-yëngu yu jëm ci ñi njiite ci liste yi ci élection législative foofu si ci pandaw li fi euh, yi daal la Euh, tey jii nag ñuy teeru ki nga xamante ne nag moom mooy Diop Sy bu CPGI muy euh, convergence patriotique euh, justice et équité ñu ngi amal benn caravane fii ci diwaanu Thiès ci quartier yu bari tey dina am benn meeting bu mag boo xam ne ñu ngi koy amal fii ci Medina Fall ak beneen caravane boo xamante ni nag waa Fal askan wi bu si Sylla ñu ne ñu ngi koy amal dem nañ kër yi Serigne Abdou Yakhine ak Mouride foofu nag moom concept bi mu indi mooy ripañ dañuy dox dugg ci quartier yi porte à mën a waxtaan ak askan waaye daal si la am na loo xamante ne maanaam wax na ko léegi nee na bulletin yi nga xamante ne moom la ñu war a wote mu di bulletin daanaka dafa am beneen mandarga bu ci def boo xamante ne daal neexu ko ba tax na moom xotom la bëggoon ñu def ko waaye nag dañ koo def mandarga te yëgu ko li nga xam ne mooy mandataire am yëgu ko loolee tax nag euh, liste boobu nag euh, da ko rejeté euh, waa mi nee na mi ngi ci xaar premier ministre nag ñu mën équipe ministre yi nga moo yor wàllu intérieur bu uh, indi ci ay coppite uh, waa PVD bu uh, sëñ Modou Kara Mbacké Moustapha Kara Fall jiite liste départemental fii ci diwaanu Thiès ñoom it ñi ngi amal ay caravane xëy nañu Touba Pékou jàmm gën jamono yi nag ñi ngi ci Toubatoul ak Xombol PUR nag muy parti de l'unité et du rassemblement ñoom it am nañu ay visite à domicile yoo xam ne ñu ngi koy def ndaxte dañoo former ay ndaw jox leen ay t-shirt jox leen ay feuille ay li nga xamante daal moom mooy li nga xamante ne moom mooy seen mandarga ñu dugg ci kër yi dugg ci maanaam askan formé ngir ñu mën leen a jàppale woteel seen liste bi nga xamante ne waa PUR moom la ñu muy rawatina ki nga xamante moom mooy tête de liste bi di Babacar euh, Dembélé jamono yi hmm. euh, euh, yi fi nga xamante moom mooy Ngaay Mexe kon Chérif loolu la am ci hmm. lu a nga nekk it expert électoral ñi ngi woon ci njàngat li ba nga yoxoxu fichier électoral bi. Mm. ak tolluwaay yi ak carte électorale bi est-ce que acteurs yi jot nañ ci pour. xam situation bi xam nga loi bi dafa nii au moins minimum un mois foog fichier bi disponible mais xam nga bi mu disponible mat sax une semaine mat sax une semaine parce que foog <laughs> acteurs yi tous les acteurs. de l' élection politique sax muy élection muy parti muy ñëpp Sénat tout le monde da ci war a jot pour xam par exemple tey même par exemple pour 1600 il faut que ñu xam fu mu war a nekk. pour ñu nag bi su fekkee ne ma sama carte mu ngi ci centre bi suñu déplacé centre bi foog ma xam centre bi fan la pour ma dem jëli ko. donc xam nga yooyu yëpp dafay nekk ay ay ay ay ay ay ay ce qu'on appelle ay. possible. folon mhm. euh, ñu ñëwaat rek rek dafa mel ni am na ma ngay am ay yëngu-yëngu ca poste Médina Pape Fara Gningue yaa nga fa naka la mbir yi demee foofu. waaw la Barthélemy Diaz moo def tamit moom convent bu rëy naam waat dafay def déclaration këram mu ñëw fii affronté policiers yi jan ak ñoom taxaw. ñu wax ko demal ba sonn mu daal di bañ def déclaration ne Wade fa euh, ki nga xam ne moo nekk Macky di leen jox seen carte ak seen cinquante milliards fu ñu jógee boobu nag la lacrymogène yi daal di jug mbir yi métti jaxasoo euh, poste Médine nag euh, jaxasoo na lool noonu la tamit ponti mel ndaw PDS yi ak seen coalition ba ñu nga fa dàqante door dóor lacrymogène kon daal Barthélémy Dias moo ñëwaat ak sonoom Euh, le chien aboie la caravane passe boobu la ñu teg yow taxaw ne foo ñu jox leen carte yi te dina jàll ah, fi mu toll nii nag ba léegi lacrymogène yaa ngi tàkk dañoo xaw a sori tuuti pour mën a daal di communiquer na ñoom Barthélémy Dias ànd ak nag ndaw yu bëree bëri ñu sol ay kagul ah, xaw ma dañ ko préparé xaw ma dañ mais ñu bëree bëri ñu ngi sol ay kagul dugg ci ay pique daal di ñëw àndut ak ay militants mais xam naa ñoom ay garde corps lañ lu ñu doon ci pick-up lañ leen def poste Médine ba léegi policiers yaa ngi ñëw ñu dàkk la barricade yoon bi nit ñi suñu bëggee jaare sax oto yi dañuy virer jaar ci biir station bi tëli bi la baare ci boppam euh, Chérif. jërëjëf Fala nga moytu nag euh, fitna yooyu léegi ñu wéy ba léegi ak Malick Diop Malick euh, léegi ñi ngi woon ci obtention li nga xamante ne information la jëm ci organisation scrutin bi. Mm-hmm. waaw xam nga tey moo tax mu ni moo tax ñoo ngoon ci ci carte bi carte électorale je pense que yooyu yëpp ay ay jiix jaax yoo xam ni dañ ko am dès le début ñu ñëpp amoon ci ay préoccupations même su ñëpp waxoon d'accord sur le principe mais xamoon matériellement et techniquement durée bi gàtt na. mais am dana amoon objectif au début. am ministre bi ne 4 millions d'inscrits. non mais c'est xam nga xam nga xam nga sénégalais yi xam nga xam nga même soo amee mais retrait bi aussi intégré wuñu ko parce que intégré production ak inté ak ak retrait parce que aussi carte dafa am moment boo am temps boo koy produire. Mhm. ak temps boo temps boo xam da nga koy transporter. muy logistique bi yëpp ba nga am aussi ak temps boo xam électeur bi daf koy dem retrait xam nga yooyu dafa xat dafa xatoon ci digg dafa xat ci diggante bi soo xoolee fichier bi ñu def def nañu un an te soo xoolee un yi ñu def ci fichier bi pourtant am nañu taux de de ci ci ci yi yoo xam nit ñi jëlewuñu ko te pourtant amoon nañu temps boobu kon problème bi problème timing la. kon dañoo waroon a dem ci élection ak ancien fichier. possibilité mais boobu ci boobu mais mais boobu bi ñuy def bi ñuy def euh, euh, comité de comité bi. ñoom ñëpp dañu amoon problème ci résorption stock mort dafa nekkoon psychose ñëpp. stock mm. mort stock mort ñaata électeur yi am amoon na un million et cetera tey soo xoolee on est à six mille six cent six six millions. Mm. contre cinq cent cinq cinq millions. donc ma am na ma am na am na marge. Mm. mais da ngay fàttali dañ ko couplé ak carte d'électeur ak carte d'identité. Mm-hmm. donc ñu bëri analyse bu ñu def ñun aussi ñu bëri aussi ils ont été motivés. par l'obtention de la carte d'identité carte carte kon dem vote ji soxalu leen. non am na yoo xam ne l'étude am na am ñu bëri soxla leen so parce que taux bi du du du yëkkati ko du dem du dem maintenant maintenant mais il n'empêche pas que ni citoyen bu nekk. dafa war am carte ba nga xam ne moom mu def choix am ba nga xam ne dimanche su ko neexee jël kartam am dugal ci poosam tëdd nelaw wala mu dem voté ci ça c'est son choix. et boobu kenn war privé. Mhm, loolu dañ ciy ñëwaat Ousseynou am ginnaaw bi mu la noo yow yaa nekk ca Rufisque Rufisque nu dundee journée tay bi ci campagne bi. gannaaw ngi wéyal campagne. Mhm. Ah, la comme ñu ngi wéyal campagne bi fii ci département bu Tëngéej rek comme ni depuis ko doonee ba léegi euh, ñu tàmbali ko rek ak ñi di coalition wattu gagnante wattu Sénégal ah, libéraux yi nga xam ne ñoom ñoo ko jiite euh, kenn nag kuñ ci gis seen caravane yi ñuy amal démb ba léegi muy euh, député Awa Diop jiite jigéen ñi nga xam ne nii ñoom ñoo bokk ci parti démocratique sénégalais euh, Chérif am na benn entretien bu ñu def ak moom mais moom li ñu mën a tënk ci discours am rek mooy dafa woote jàmm nee na élection yeeg li def ci campagne bi yëpp na nit na ko nit ci amal ci jàmm ak salaam Euh, bañ a yee fitna bañ a xeex xam ni Sénégal benn bopp la euh, ñaax la nag aussi nguur gi ñu gaaw lool taxaw nag ci li nga xam ne lii moom mooy carte yi ndax nit ñi man cee jot mën a euh, bu dimanche jotee gannaaw coalition gagnante boobu nag kii di ndawi askan wi Ousmane Sonko ñoom ña ngay amaat proximité fa la nga xam ne nii moom mooy moom mooy plan Jaxaay Chérif benn meeting nag la ñu nemmeeku tey fii ci département bi ñu koy amal fële ca Sébikotane li di coalition Manko taxaw Sénégal docteur meeting bi foofu nga xam ne nii euh, moom mooy Sébikotane euh, li di coalition Benno Bokk Yaakaar seen ndaw yi nag seen ndaw yi ah ndaw yi bokk ci ci ci APR yi bokk ci parti nga xam ne ñoom ñoo ko coalition bi ñoom ci suba ba léegi tamit ñi nga am ay caravane di distribuer ay spécimen euh, di ñaan askan Tëngéej tamit nañu voté seen coalition boobu euh, ndax projet yi ñi ñi jàpp ne Macky Sall def fii ci diwaanu Tëngéej lu ci mel ni pôle urbain bu jëm ñaaño ak li nga xam ne lii euh, moom mooy bateau taxi yi gannaaw ñooñu tamit gis nañ fi ay parti lu ci mel ni PUR parti de l'unité et de rassemblement ñoom ñi ngi waral yoreel seen caravane semaine bi yëpp daanaka ay caravane la ñuy def diwaan bu nekk ñu dem fa ci Tëngéej waaye tamit euh, PVD bu Serigne Modou Kara Mbacké euh, ñoom tamit ñi ngi am ay caravane euh, fële ci booru Diamniadio jàpp Sébikotane ak lii di coalition leeral bu maître El Hadj tamit ñoom tamit ñi ngi fi li nga xam ne lii moom mooy seen visite de proximité yi fii ci département bu Tëngéej Chérif Dia. ñu ngi koy sant di ko gërëm Malick Diop plateforme des acteurs non étatiques. yaa ngi ne woon li li li doon gën mooy sénégalais bu nekk jot sa carte dem vote loolu mënul am parce que ministre bi wax na ko ba tax sax njiitu réew mi jël lettre jagleel ko conseil constitutionnel léegi saisine conseil constitutionnel boobu laa bëggoon ñu taxaw parce que indi na fi coow. Mm-hmm. yow jàpp nga ni lu jaadu la. waaw xam nga xam nga bon euh, président de la république am na prérogative saisir conseil à tout moment saa yu ko neexee ko je pense kooku euh, sañ-sañam la waaye dama doon wax ci début bi que ni politique euh, dialogue waxtaan. république waxtaan ci la waxtaan lañ koy lal xam nga absence su dialogue ak la qualité de l'écoute mooy ñu indi fii yëpp du man dama am sañ-sañ bi rek damay jël lépp jox soo ko séqalee nit ñi ndab li da ngeen ngi leen ciy waxtaan je pense que ça moo indi problème bi yëpp xam nga tey euh, tey pour man j'aimerais bien que parti politique bi coono gi ni jot fii yëpp tey nii lacrymogène def seen show yëpp mobiliser militants yi ñu dem ñu dem retirer seen carte man chaque c'est mon choix citoyen coono gi dañ ni yëpp on mobilise de l'argent on mobilise de l'énergie yàq xaalis yàq indi nit ñi su suñu ko defoon dès le debut ñu dem def dem mobiliser je pense que ni peut-être que daanu avancer parce que ñun am nañ ci responsabilité am ñëpp ci am responsabilité parce que l'éducation politique dans ce pays la fait défaut amul éducation politique parti soo leen déggee rek ñu wax rek élection la parti soo leen déggee ñu wax élection la élection di waa ñëw révolution euh, euh, révision code électoral et cetera doo leen déggaat ci leneen donc ñu mun a mobiliser wu rek loolu rek moo leen mën a mobiliser mais en dehors de cela à l'intervalle de deux élections il y un travail à faire mobiliser def éducation yar nit ñi yar seen citoyen tey kay tey ku ne sa say say militant parce que xam nga Chérif vote bi vote militant la c'est un vote partisan mun nous ce qu'on appelle c'est un vote partisan parce que ki la ëpp capacité mobiliser mobiliser dimanche mooy gagné parce que les situations ne vont pas ne vont pas se mobiliser le vote présidentiel c'est purement un vote citoyen les gens se mobilisent l'électorat se mobilise. te d'habitude parti pouvoir ñoo am. voilà voilà tu vois c'est c'est ça le problème parti pouvoir ñoo am pouvoir moo tax abstention fu mu amee rek dafay dafay dafay dafay avantager parti au pouvoir te mode élection bi nu am fii xam nga tey soo xoolee élec gis nga opposition ñi wax yëpp mënuñu changer dara assemblée. mënu changer dara assemblée nanu dem assemblée duñ fa changer dara. ndax amul majorité parce que même suñu amee majorité ni ni réew mi di fonctionner ni réew mi di fonctionner régime politique ni régime bi di fonctionner loolu moo tax assemblée di fonctionner nii. parce que on est dans un il faut ñu taxaw seetlu c'est-à-dire on est dans un régime foo dem même France boo xam ne di ko copier même Macron gis nga bi mu gagné dafa mobiliser wu. pour gagner am majorité. majorité parce que su ko amulee du exécuter politique donc l' assemblée dans le cinquième ci cinquième république ñu tel que ñun ñu ko jëlee depuis 1960 bi dualité bi amee entre Senghor. ak Mamadou Dia 62 62 donc loolu moo indi ñu rek ñu kale ko ba nga xam ne par exemple prolongement la pour permettre a l' état à au président de de sa politique parce que moom mooy déterminer politique bi tey même su opposition gañee dem kii am. mun nu imposer président ni que. mu mu mu hmm, fal mu fal leen premier ministre. te monté ci discours yi da ngay dégg ñu ne. buñ moo tax ñu ni qualité moo tax gis en tant que citoyen di déglu yenn. maanaam dañoo umpale ñoom lan la li tax ñuy wut. comme si li ñuy li ñuy xaj ñëpp naan assemblée avantage la ak kii ñoom mais li tax dëgg dëgg dëgg dëgg assemblée da ngay xam lan mooy assemblée. ñu demaat génnaat ci biiti Salif Sow ginnaaw bi ma la nuyoo banlieue bu Ndakaaru. foofu nun fa mën a jàpp ci campagne bi tey jii li fi gën a fës mooy euh, gars yi ñu ngi waajal ñi nga xamante ni mooy ñëw tête de liste nationale yi ci diwaanu Pikine ak fi nga xamante ni mooy ci diwaanu Guédiawaye bu fekkente ni ci diwaanu Pikine la maître Abdoulaye Wade tête de liste coalition gagnante wattu Sénégal ñu ngi ko fiy xaarandi suba war def li nga xamante ni mooy fukk ak juróom-benn commune d' arrondissement yi nga xamante ni ñoo composé département boobule waaye ki nga xamante ni mooy maire bu Pikine Nord nekk it ci liste yi ñu investir ko au niveau départemental di Amadou Diarra sànq yëkkati na ay mooy carte électeurs yi daal ñoom ñooy euh, ay ay ndaxte bu dee vingt sept mille inscrits moo am ci commune am dix mille cartes kase kase kase la leen jot a jox ci diwaanu Géejawaay foofu tey ci suba waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo doon jàkkaarloog way taskatu xabaar yi ñoom it ñëwub seen tête de liste nationale lañ doon wax jeudi Boun Abdallah Dionne dina fa ñëw loolu mooy premier point bi deuxième point bi moo nekkoon taxawaay opposition bi buñ jàpp ne li ñuy def du dëgg du yoon troisième point bi Alaaji Malick Gakou lañ ko jagleel mm. nee na waa joojo lu mu wax du ko def li des ci diwaan bi mooy Abou Abel Thiam xam nga ne tey ci ci ngoon gi day amal li nga xamante ni mooy caravane diwaanu Tivaouane jak saaw euh, ki nga xamante ni mooy Bougazali day amal ñaari meeting benn bi Golf Sud la beneen bi fi nga xamante ni mooy amoo 2 la ñu daanele ak Aminata Lo Dieng ginnaaw raay moom xam nga ne temps yee weesu def na déclaration ne fekki na ki nga xamante ni mooy président de la République Macky Sall waaye ba loolu amee dafa am ay kàddu ne dañ koo jënd cinquante lay jar weddi na loolu ba tëdd ci naaj wi <laughs> loolu daal la ñu a jàppandi di ko gërëm euh, Malick dañu ñëwaat ba léegi ci saisine bi parce que ñu bëri doonu jàpp ni njiitu réew bu defee loolu dafa dafa fekk ñin dénk organisation élection bi danoo lajj. Mm-hmm. Euh, ban gis waaw xam nga tey soo xoolee saisine bi man je ne sais pas parce que soo xoolee euh, conseil constitutionnel c'est que su le principe rek lay wax xam nga article bi article article 3 bi alinéa bi tax ñu saisir ko. Mm-hmm. dafa nekk modalité yi loi moo ko déterminer de port de vote la constitution dafay garantir principe citoyen de vote à tout le monde mais il dit que les modalités sont définies par par loi. te loi boobu mu ngi ci code électoral. non non mu ngi na code électoral moo déterminé nan la ñuy voté. Hmm. code électoral moo ni carte la ñuy voté carte CEDEAO xam nga soo même soo saisir conseil il ne fait day réaffirmer rek le principe. mënut a wax safaan non non mënut a wax sax parce que day réaffirmer principe la boo xam ne ci constitution bi. premier constitution moo ni moo ni la article 3 alinéa euh, article article 3 euh, article bi alinéa 3 bi article 3 alinéa 4 moom moo ko wax moom moo ni moo garantir la participation dafa ni textuellement euh, que tous les nationaux sénégalais de deux sexes âgés de 18 ans accomplis jouissant de leurs droits civils et politiques son électeurs dans les conditions définies par la loi mm-hmm. donc principe boobu rek lay raffirmer mun fi wax lu yées loolu mm-hmm. maintenant nan la ñuy voté conseil constitutionnel du ko wax loi bi moo ko wax te loi bi code électoral la te code électoral moo ni carte électeur CEDEAO la ñuy voté. article R70. voilà R70 moo wax loolu. di ko maintenant su fekkee ñun waxoon na dès le bi amee na ni waroon na sax amee recours su amee recours parce que gis nga soo defee loi day impersonnel tey problème bi am yëpp même xeex bi yëpp loi bi dafa impersonnel parce que kuy def loi rek da ngay xool sa opposition bind loi def ko donc ëllëg su la dalee nga nga nga kaas. kon ñi naan sept sages yi maanaam àttekat yi nekk fële ci conseil ba ñoom nekk nañ à l'aise ci situation bi. non ils sont à l'aise ils vont ils vont ils vont le monde sait c'est le principe constitutionnel du droit de vote c'est ça c'est le principe maintenant après su cette base-là su ko réaffirmer peut-être après mën nañu génne loi wala décret pour dire que comme loolu ñu affirmer nañ ko mën nañu utiliser tout identifiant. Hmm. muy muy yi ñu wax muy passeport ak muy yooyu. donc c'est ça y a y a am dara amul dara lu bees loo xam ne war nañ ko fi mën ko fi yóoxu pas réinventer la loi ils ne vont pas réinventer la constitution mm-hmm. la constitution est claire là-dessus c'est un principe garanti et mm-hmm. en tant que constitution ñoom ils vont réaffirmer ce principe ce principe là je pense c'est important mm-hmm. maintenant le problème mooy que ni ci modalité yi su fekkee loi la nan la ñuy defee loi fii léegi trois jours. procédure d'urgence moom mënut a am mënut a am procédure d'urgence am fii léegi suba gën a suba. déjà déjà matériellement tous les députés. ñu nga ñi nga tasaare noonu ñoo ngi ci réew mi ñi nga xam ni dootuñu dootuñu dootuñu nekk dootuñu nekk euh, député gis nga bi ñuy loo lu bi ñuy def mhm. modification loi 116 bi pour pour limiter trois trois yi assemblée dafa pratiquement ñi nga xam ne dootuñu député dem nañu seen yoon. Mhm. parce que ñoom pare nañu ci mes. Euh, législature est ñu ñu ko. ci yooyu yëpp dañ ko moo tax mooy loolu mooy c'est que gouverner c'est prévoir c'est que état bi am na information tout ça. amoon na ko xamoon na ni lii lii possibilité bu retrait carte dañuy poser problème donc mënoon la tëxañ loolu yëpp bu ñu defee régler une bonne fois pour toute la question mais loolu mooy gouverner sooy gouverner da ngay prévoir da nga naan kat ëllëg dinaa am difficulté xaar tey ma anticiper ka régler ko mais doo def à coup kii neen day marche nga génn beneen kii neen day yooxu nga génn beneen ça ça ne fonctionne pas comme ça. Mm-hmm. dinañ ci ñëwaat ñu génnaat ci tey bitim réew la ñu dem Baba Aïdara yaa nga foofa tamit gars yi daanaka campagne bi léegi tey mu jeex lu mën a jàpp rawatina jafe-jafe carte yi parce que ba nga génnee bërki démb waxoon nga ko fi. waaw euh, dëgg la euh, jafe-jafe carte yi moom ba tey jii moom mooy coow li fii ci diwaanu Amérique euh, dem na sax ba nga xam ne appel boobu te maître Wade wax ni nañu dem def ay manifestation ci buntu consulat yi opposition bi ñoom seen bopp dinañu tase tey ci buntu consulat bi fii lekk waxtu. pour ngañ li ni mel waaye bi ñu defee vérification bi auprès de la police de New York ba tey ci suba ci lu dix heures ci suba bu mu jotee police New York amul fenn fa nga xam ne am na manifesta am na manifestant yu demandé autorisation pour que ni mën a dem manifester ci buntu consulat bi kon xëy manifestation bu fay am tamit du doon lu war takku noonu ndaxte bi nu vérifié ak police New York bi gisuñu benn autorisation bi nga xam ni euh, opposants yi waxoon ni dañuy manifester yónnee ay message voix ci réseaux sociaux yi téléphone presse beeg yooyu gis nañ ni déposé wuñu kon euh, li nga xam ne moo di demande bi dina am wala du am dinañ ci xam fi lekk euh, waxtu incha allah leneen li nga xam ne am na fii mhm. moo di campagne bi tar na trop dem na ba nga xam ne am na ay wax yi bare yu ci jóg ba sax nee nañu ragal nañ ñu vote sanction dina am ci coalition Benno Bokk Yaakaar ndax ñu ci bare dañu jàpp ni ña nga xam ne dugal nañ leen comme suppléante ñi nekk ay directeur de campagne ca la nga xam ni moo di euh, Benno Bokk Yaakaar dañu ñoom ñi nga xam ni ñoom ñoo sos Benno Bokk Yaakaar ci diwaanu Amérique dañu gis ni kat dañu leen bàyyi gannaaw jox transhumants yi yooyu place loolu nag métti leen lool ba nga xam ne nee nañu daal ñoom ci vote sanction nañu def ni ñu jokkoo ci nag ay nit ñu mhm. ñu wéral ni ñoom position boobu nañu am waaye bu ñu jokkook ña nga xam ne ñooy kilifa yi Benno Bokk Yaakaar surtout waa APR yi nekk yi fii dàq nañu li ni mel nee nañu loolu frustration la woon ci début bi rek waaye du doon li nga xam ni lu wér la. beneen coow bi nga ñi koy sant di ko gërëm moom moo ñu teewal fële ca États-Unis ngeen dégg kon lam ñu wax rek ñoom seen diwaan boobu doon fal. benn député ci fukk yeeg juróom yi nga xamante ni ñoom ñoo war a teewal doomu Sénégal yi nekk ca bitim réew Malick Diop bu plateforme des acteurs non étatiques ba léegi ñu ngi woon ci loolu. maintenant mbiram carte yooyu ginnaaw am na jafe-jafe ak pexe mi ci njiitu réew mu bëggoon a indi ne nga dogalu conseil constitutionnel da nga yaakaar day delloo gars yi rek ci loi ba. kon su ko deful ba léegi dina am ñoo xamante ni duñ voté ji ndax duñ jot seen carte ministre de wax na ni ñëpp ñoo jot seen carte. non non maintenant su ko réaffirmé maintenant après ñoom ñooy xool je pense que mën na su ko réaffirmé comme parce que avis la su ko réaffirmé mun na ni bon mën nañu voter garantie que ku lu nekk mën identifiant donc ça c'est pas contradictoire à la constitution hmm. donc c'est ça que je dis maintenant euh, euh, euh, li ministère je pense que ni tey débat bi du ay kii ne def nii kii ne je pense que il faut que reporter dañuy am les élections vont se tenir incha allah ils vont se tenir peut-être que dana am jàngat yu bëri parce que xam nga élection bi Chérif lu tax mu metti lu tax mu tar élection intermédiaire la et c'est pour la première fois xam nga tey c'est la première fois depuis euh, constitution bi ñu am euh, législative ci biir présidentielle xam nga bu njëkkoon def présidentielle def législative mhm. c'est la première fois sax ñu am législative ci biir présidentielle bi nga xam tey présidence bi day ñëw Macky Sall day ñëw substitut perdre majorité à l'Assemblée c'est comme comme 98. xëy na comme 80 mu ñëw mais c'est que bii dafa tar parce que c'est à l'intervalle de deux ans yoo xam day ñëwaat moo tax cest à ñi fi def ñëpp ay arrière-pensée la am te quel soit alpha mooy ce que je li may jàngat mooy que li ñu xam mooy que ni législative bi su demee assemblée bi deux ans la après 2019 quel que soit alpha dañ parce que c'est ça parce que xam nga mënatul accepter waat c'est-à-dire que benn politique mu ñu am insécurité. ci ci digg ci ci kii bi comme à l'américaine boo xam ne toujours y a mandat intermédiaire bi nga xam toujours day remettre en cause basculer et cetera xam nga kooku pense que quelque soit parce qu'il faut 2024 pour ñu arrimer ñu mën a ànd voilà ñu arrimer xam nga loolu la di il faut prendre que soo ku ñëw képp ku gagné su fekkee Macky moo gagné bon mun na ko mais dafay amaat ci diggante bi avant 2024 beneen élection bi donc il faut que ñu moo tax ki voie intermédiaire rek bii Euh, euh, premier mi-temps wu deuxième deuxième dix-neuvième moo tax mu moo tax mu am exacerbé wu euh, ambition yu bëri enjeu yeeg yooyu mais enjeu yi tout assemblée nationale enjeu yi de 2019 la loolu moo biaisé le débat loolu moo tax aussi ñun citoyens en tant que acteur non ñu am ci frustration. ñu den ci ñëw ak loolu waa société civile dañuy dem ca France bi yoon génn ba léegi ci bitim réew Ibrahima Camara ginnaaw bi ma la nuyoo. tey jii ci talaata ji lu mën a jàpp ci yëngu-yënguy candidat ak tamit euh, mbiram carte yi comme amoon na fa ay jafe-jafe fan yi candidat yi euh, Chérif Dia li ci ëpp mooy euh, ay proximité lañ nekk di def ni euh, ñoom jamono ji guddi nag lu ñu ëpp lu ñu koy def ginnaaw bu ñu liggéeyee ba wàcc ñoom candidat yi ak ñi nga xam ne de campagne guddi la ñuy wër ci dëkk yi di def ay di dem nemmeeku ñoom la ñu bëgg a convaincre muy sénégalais yi yeewoo fii ci Île-de-France bi ak France yëpp waaye ginnaaw loolu mbirum carte tamit Chérif li ñu mën a jàpp mooy ne délocalisé nañ ko jëlee nañ ko ci consulat général électorale bi di Rue Amalin yóbbu ko ci palais des congrès mooy bërëb bi nga xam ni foofee la ñu war a dimanche bii ñëw ngir euh, euh, séddale carte yi ndax ci foofee bërëb bu yaatoo yaatu la ngir euh, mën a séddale carte yi nu mu gën a bare waaye tamit commission itinérante yi mujj nañ leen taxawal itam Chérif gannaaw ba déggoo amee ci njiitalu ambassadeur bi fii def nañu ay commission yoo xam ne daanu dem Avignon Rennes ak bërëb yu euh, sori yi ci mel ni ay boobee ak yu ni mel ngir séddale carte électeur yi fi mu toll nii loolu la ñu mën a jàpp Cheikh euh, Dia fii ci France ñeel wàllu élection législative yu euh, dëgmal war a am dimanche bi di ñëw. jërëjëf Ibrahima Kamara ca Tugal Malick ñu ñu des ba léegi nag ci parce que gis nañu yaa ngi doon waxu dialogue mm-hmm. maanaam ñu waxtaan pencoo mbir yi ngir réeroo ba ñu am bi gis naa démb Doudou Ndir bi muy dalal ministre de l'intérieur wax na ko. ne ko moom it reproché na ko sax ministère ba du mhm. ne am na depuis longtemps ñoom daje woon seen biir seen Sénat tamit ci coow li lépp lan la war a doon non moo tax xam nga lan ne mooy mooy manque de culture de dialogue waxtaan ñun je pense société civile muy ak muy ak plateforme acteurs non étatiques ak ñëpp ñuy àndal ñuy travailler réseau euh, réseau réseau des observateurs réseau site 3D euh, tout le monde euh, on a toujours poussé être neutre dëgg fi mu fekk loolu lu yox ngeen tëddee njaxanaay daaw faralu ma sàmba ma faralu ma demba suñu waxu ëllëg démb mooy suñu waxu tey donc suñu wax dañ koy teg ci principe ak ci lu yoon wax et au côté des citoyens pas au côté des politiques au côté des citoyens donc moo tax ñun chaque fois loolu lay wax ci référendum bi ba mu jógee la même chose. mais acteur politique est-ce que yomb na ngeen ngeen jéem a ñaw diggante parce que ñoom wóolunte woon seen biir. waaw moo tax moo tax ñu suñu rôle central société civile am solo ndax gis nga. xeex kuy àtte xeex du xeex chaque fois loolu lay wax société civile ñun dañuy àtte comme dañuy àtte xeex duñ dem di xeexi ñuy xeex di nga leen bàyyi ñu xeex parce que mooy seen rôle mais foog mu am ñu ñu mën taxaw pour àtte leen donc moo tax ñun waruñu jël position ñun on est c'est la société civile je l'ai dit tout ça on n'est pas on n'a pas une position partisane on na une position citoyenne ñan jéego ngeen def ngir ñu bañoon a egg egg si situation. non li ñu def xam nga par exemple soo xoolee duñ jox historique bu pas mais soo xoolee depuis refonte fichier bu njëkk bi yëpp on a même comité de veille yeeg yëpp ñoo ko gérer ñoo ko accompagner avec doyen Magib et tout ça ça a compté le comité donc ça c'est important à chaque fois aussi ñun ñoo mën a woote ci même table opposition état ñoom ñëpp toog waxtaan parce que ils ont confiance à ce que nous ce que nous faisons et cette crédibilité là. ñun société civile acteur dañ ko war a cultiver. Mm-hmm. et important beneen bi mooy que ni être aux côtés des les informer les donner l' information tey soo xoolee une semaine yëpp je pense seen correspondant yi gis nga ñoo ngi. ñoo ngi ci biir réew mi ci biir réew mi fépp. caravane porte ñëpp di expliquer. Mm-hmm. di dox gars yi ñu dem jëli seen carte. Mm-hmm. daanaka ñu ngi ci midi di mujj laaj bi tamit euh, mooy ban leçon lañ war a tirer ci li am ngir mu bañ a amati. Euh, bañ a yàkkamti gis nga yàkkamti. day yàqu yàqule je pense que ni débat politique muy le débat politique dañ ko war a dépasser Sénégal nga question yi Chérif franchement dañ ko war a dépasser des années ñoo ngi voté ay ati ati ati at bii mooy sunu douze treizième législature ça veut dire que pendant douze ans pendant douze législatives multiplié par cinq ñoo ngi voté correctement. boole ci présidentielle locale local référendum et cetera donc on vote. kon loolu soo koy def pendant cinquante ans mais da war a màgg ku jur ku dund kuy def dara ba am ci juróom benn juróom fukki at sa waay wax moom muskàllaf nga ci donc war nu avancé ci régler loolu une bonne fois pour toutes li koy régler nag mooy ñu trouver des consensus forts ay piliers yoo xam ni kenn du ko laal ñëpp ñëpp d'accord ci ñu ni lii kenn du ko laal comme ni ñu mettre ay piliers ci constitution bi que Sénégal c'est un pays laïque et xam nga yooyu kenn duñ sax def am débat. amul débat donc il faut ñu revenir sur yooyu ci code di revenir on a un code consensuel mais comme day évoluer de 92 il faut ñu d'accord ci yoo xam ni ci mode d'élection yi législative il faut ñu d'accord ci mode élection yi ce qui pose problème mooy le mode d'élection des législatives nit ñi ñoo ngi voté te xamul kan la ñuy beneen mooy euh, autorité bi war a organiser élection yi parce que gis na mu nekk débat opposition bi ñoom mosuñu ànd ci Abdoulaye Daouda Diallo mu organiser ko gis na ni Abdou Diouf benn moment ab général la indi woon ngir dénk ko ko Abdoulaye Wade aussi bi cas bi critiqué en 2012 Cheikh Dieye la jëloon jox ko ko. jàpp nga ni kon organisation élection yi ministère de l' intérieur mën na kon ne di ko defoo wala ko war a dénk ko. man pour man Sénégal waroon dépasser ci structure d' exception ça c'est surtout d'exception fu ñu ko def mooy baaxul. le pays kon gêné wu la. non ça me dérange pas parce que parce que partout def nañ ko plusieurs fois opposition gagné pouvoir perte et cetera et donc problème du question da le ministre en tant que politique parce que je crois que on a une administration donc efficace ñoo am expérience pour mun ko def ce qui pose problème c'est des débats politiques su si politique la xëy mooy indi lii mais si su si on respecte le le euh, la la république le principe liggéey li ñu ko war defee on en a fait partout dañuy perte dañ koy def def nañ ko fii France mooy référence ministère moo ñoo koy organisé day da te teewul kii gagné day gagné fii on l'a organisé 2012 bi ñu koy 2000 def nañ fi alternative te pratiquement ñi nekkoon fii ñoo fi nekkoon il faut pas se leurrer 2012 la même chose ñi nekkoon fii ñoo fi nekkoon hmm. a une boo xam ne maintenant ce qu'il faut faire mooy dépoussiérer am ay consensus fort. ay déggoo ay déggoo ay piliers yoo xam dañ naan nii kat d' accord nañu ci lii. Mhm. suñu d' accord ci lii nag suñu demee ba koy changé noonu toogaat soppi ko mais li gën mooy li bon mooy que ni maay arbitre maay fubal maay dugal et man maay juge day poser problème. am na solo ñu ngi lay sant di la gërëm Malick Diop mbokk yi ñu ngi ko doon dalal moom mi ngi tudd Malick Diop di coordonnateur plateforme. des acteurs non étatiques juriste la xam-xamam màcc ci wàllu élection ñu ngi lay sant di la gërëm ci ànd bi ak TFM. jërëjëf jërëjëf Chérif ñoo ngi fii te incha allah jërëjëf. ñu ngi dimanche ak yooyu dina ñëw jàngataat chiffres yeeg statistiques yi nga xamante def ngeen ko ci loolu ñu xool rek taux de participation bi. Mhm. fu mu toll ak ñi abstenir wul maanaam toog seen kër voté wun ñu ñaan nit jàmm daal am ci réew mbokk yi kon fi ñu yam seen émission riiru campagne di leen jox daje ëllëg incha allah jërë ngeen jëf